su mag bi. waaw. lépp jaam. am tawfeex. naka dóori. ñu ngi nii rek sant yàlla bu baax. yaa ngi si kawam. ñu ngi nii rek sant yàlla. daa mel si bëccëg nekk de. non maa ngi ci ngoon rek. maa ngi ay cinq heures yooyu. ngoon ah. ko. saa yi tool yi bëri de. ku coowati foofu. Balla Gaye Tapha Tine maaraay génn ñi jaar nii ñi jaar nii analyse kat yi saa ah, réew mi yëpp analyse coach Bakary la ñuy xaar nag non gars yëpp sama analyse la jël di ko waxtaanee kenn ku nekk yor ci version non mais yow analyser ko wala ma man li leer na naa wax naa la ko jàmbaar yow loo analyser Tapha Tine Balla Gaye gars yi dañuy delluwaat ba 2014 on est en 2024 Tapha tafaatin am ci lum nekkoon lu solide dernière dix ans yi ñu génn boo xoolee Tapha benn yoon la ci daanu te Ama Balde moo ko daan te la ko mooy kaa ñu xeex ma dàq ci kaw jëli ci suuf Tapha am lu mu ci jàngee ba léegi ñii Tapha daanuwu ci Mm-hmm. bu ñu waxee wàllum compétition tafaatin da cee pré da cee ñor. bu ñu waxee wàllum confiance jamono ji tafaatin da cee taxaw da cee ñor. lii dàq ne Tafatine ragalul Balla Gaye mooy bi tafaa jëlee ëmmat seen te góoma de nañ bàyyi ay caaxaan yi. Mm-hmm. xëy na Tafatine bëriwul coow làmb mais dama lay wax ne la c'est sportif bu dur ak cuir. à cent pour cent amul kenn kuy bërek tafatin di ko jël caaxaan dañu waxante dëgg léegi Balla gay dafa am phase boo xam ne Balla Gaye da koo toll muy bal phase dama leen woo ne ne leen Balla Gaye faw mu defaruwaat Balla gay ci phase u defaru la tolloon keroog bu hmm. muy jugeen ñëw man maa njëkk a génn xalab ko vrai ou faux tey gis nga Balla Gaye état de forme bi mu nekk mais mënuñoo comparer état de forme wu Balla Gaye ak Moustapha Tine Balla Gaye ci réparation la toll kay dafa pare woon ba pare kon duñ demee ci concurrence u Tapha Balla Gaye kan moo gën a pare du loolu de dañ naan ndax Balla Gaye état de forme bi mu yor war naa mën a yëngal bu Moustapha Tine mais bu muy jóg a jóge insert da nga ne ma woon ñoom dañoo jum parce que li mu li mu indi dafa tuuti parce que instant bi ni bu nga ko gisaatee na si diggante bi wala. non waxumoon loolu de dama ne dañoo juum pour ñoom tennis kat la ñuy préparé mais Balla Gaye bi bu bëggee daan Moussa Fatin foofu mu yokkat ak muscle yi am na ñàpp. mais mhm. léegi Balla Gaye liggéey na kenn mënul wax ne Balla Gaye liggéey na. Balla Gaye liggéey na. mais bu leen fàtte ne lamb jii nii ci normal bu fekkee ne gars yi sportif lañ man kot Bakary du duma xaar victoire ci Balla gay déet waay. déedéet xam nga lu tax côté sport laay waxee. Balla dafa am ci lu mu nekkoon mu metti lool mu dem dindi lu jikko ñëw di wa kon combat bi c'est un combat de test entre Balla gay Moustapha Tine. mais Hmm. combat bu test bi lan mo ci gëna yok pression bi moy couronne bi nga xamné ni Aziz Ndiaye tek nako ko muy le couronne des l'ampleur mo gëna yok pression ci côté ñom Balla Gaye ci côté supporteru chinois yi mais la réalité la lay wax Balla Gaye dafa am fu mu nekkoon jël ñetti combat daan ci ben perte ñaar yi hmm. nekk ci état de forme bo xamné won woon du yoon yoon ànd kook ay blessure légui dem na faju ju préparer ji ñew ni indi wat état de forme bu gëna tané lam yoroon motax maanaam bu dee ci sport dañoo war a wax ne tafaatin dix ans ngi nii toujours mi ngi toog ci benn instant ci benn doole bi ci la ne tey ñu gis ne tafaatin préparation contre Balla Gaye tafaatin dafa gën a baax gën a dëgër la gën na ñàpp kon hmm. tafaa liggéey na donc Balla liggéey na loo xam ne ni tey war na mën a déplacer tafaatin ma ne la waaw waaye du ci kaa ñu jaayante doole Balla Gaye mën naa tekkeeku benn dix minutes mais après dix minutes boobu dix minutes boobu bu ko tafaatin dékkoo sérieusement Balla day am foofu problème kon damay wax ni stratégie le balle wara beure ci combat bi parce que Balla gay ba mu demee INSEP dafa dem di defaru juwaat fajuwaale entraîné waale bokkut ak ki nga xam ne ni toog na dix ans fajuwul mi ngi entraîner c'est rare nga dégg tafatine il est blessé c'est très rare. ok mais est-ce que Balla gay ci doole lu bëgg daané tafatine est-ce que psychologiquement nekul fofu lu bëgg gagner tafatine Tapha Tine ci bopp. dinaa la waxat dina la dans le domaine psychologie danaa la expliqué waatal benn affaire ndax tafatin ba 2014 mooy tafatin bii tafatin bii tafatin bii laa lay wax stratégie la teg ak Balla Gaye xamoon nañ ne dañ naan tafatin daa ragal Balla mais Balla ci jëmmi boppam moom moo leen gën a xam ne làmb ji stratégie la ko war a mën a bëree te doon ci affaire psychologie foofu mu ñëw ci wàllum technique wàllum déplacement def tout ba tafa xeex hmm. def tuuba Tafa du xeex li mu bëgg def moom moo ko war a mën a def kon Balla moom moo war a mën a tëj Tafa invité Tafa ci Balla dimension bi mu ko préparé ci lim ci bëgg. Mhm. Mhm. mais si côté boo xam bi nga xam ne moom mooy forum Balla Gaye est-ce que nekkul côté boobu moom moo si demee côté psychologiquement ci wax ñoom ñaar bu ñu échanger. wax doon bokkut ak bëre. mais des fois nga wax mbër lu koy impacté si biir géew bi. déggoo li ma la waxaat nee naa la Tapha Tine du gan ci làmb ci Tapha du gan. Mhm. Mhm. léegi nag man. Balla laay waxal. Balla war na comprendre li may wax. man nee naa la test. test de mhm. revenir moom laay jox combat bi Balla gay pas test de victoire. bu ci amee victoire gàcce ngaalaama ma xam na ne gaynde gi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñëwaat na waaye dama lay wax ne la Balla Gaye moo leen gën a xam ne mi ngi ci test de revenir combat bii du komba bu woyof léegi testé boppam moo tax mu jël komba bi nangoo jël ampleur bi nangoo jëlaat li nga xam ne ni moom mooy couronne empereur mhm. yaa ngi comprendre mm-hmm. kon Balla Gaye na xam na ni supporters yi nañ xam na ni Balla Gaye ci test de revenir la nek, supporters yi mm-hmm. buñ jël combat bi angoissé ci Balla Gaye gonflé bopp bi wax yoo xam ne wala xaar yoo xam ne nii déedéet Balla ci test de revenir la nek sport du fenn kon yow course tey jii nii bu fekkee ne Balla Gaye dafa daan Tapha Tine lu bett lu la bett lay doon non oh, du question lu ma bett parce que dafa am beneen parti beneen parti bi moom la ñuy wax la lutte gréco-romaine dafa am beneen parti bu ñu woowee la lutte gréco-romaine ñu ne la ci wàllum bëree bëree taf bëree Balla Gaye moo sut bëree tafaatin xam nga lu tax bëree Balla Gaye dafa ànd ak sañ-sañ bëree tafaatin àndut ak sañ-sañ. Mhm. la muy sóor a kon pour Balla Gaye daanu ci genre bëre bi mooy gën a yomb mais dama ne la pour Balla Gaye daan ko mooy ëpp chance fuuf. Mhm. moo tax ma ne la sañ-sañu bëre Balla Gaye mu ëpp kon buñ demee ci wàllum grec-romaine sànq dañoo nekkoon ci phase entrainement foofu du may bëgg gars yi di xam sport dama ne ci phase entraînement. Tafa dix ans ngi nii gaañuwul. Mhm. Balla gay dafa ne newoon ci descendance bu metti reyante ji ko ñëwaat indi lum indi lim indi noonu ndax mën naa daan tafaatin ma ne la mën na daan tafaatin waaye ndax mën na tenir longtemps tafaatin ma ne l' équation est là foofu la ñuy poser question ndax kii dafa defaru jo woon ñëwaat li nga xam ne nii moom mooy suux bu yàgg bi bu dëgër ba fa waroon a nekk endurance de résistance bu metti ba fa war a nekk ànd ak safara du fa nekk c'est normal c'est un être humain du robot. Mm-hmm. Mm-hmm. yaa ngi comprendre léegi suma ma ñëwee ci dimension wu bëre sañ-sañu bëre sañ-sañu bëre Balla Gaye da koo am caay-caay yu bëre Balla Gaye da koo am mm-hmm. ma ne la jël décision ci bëre daan la moo gën a yomb jël décision ci bëre daanu ci moo gën a yomb moo tax ma ne la Balla combat bi stratégie la ci war a mën a ñëw bëree moom mooy lan Balla moom moo war a mën a aspirer Tapha mais pas Balla gay dem di nangu tafaatin di ko aspirer Balla gay wër ta fekk Tapha ci li Tapha Tine bëgg a bëri parce yaa ngi comprendre mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. donc damay wax ak ay sportif bu dee sportif ñoo may déglu li may wax waxi sportif la su ma la déggee côté sport Tapha Tine moo gën a nekk au top su nekkee côté lutte pure. da ngay xam ne Balla gay moo fa ne mais dama ne la bëre Balla Gaye boobee dafay aajewu ci ay minutes ndax yaram. ok bi lim liggéey da koy may permettre ne ko Balla may naa la quinze minutes yoo xam ne nii mën ngaa daaguwaale rayante. ok bu dee Tapha mën na tenir endurance boobu longtemps. Mhm. yaa ngi Tafatine est beaucoup plus près. C'est normal. 10 ans dans le haut, 10 ans, il y a un entraînement. Chaque jour, il y a un entraînement. Beaucoup de gens ont un problème dos. Beaucoup de gens ont un surpoids. bi surpoids. dem INSEP di entraîné ji dafa dem pour wàññi d'abord, d'abord, avant muy faire ci programme d'entraînement. entraînement Balla Gaye dem na INSEP plus de un mois. bu mhm. dindi fajuwaale avant programme d'entraînement et non seulement Jeux olympiques yi commencé nous delloo au Sénégal nous avons ak ay nous ñëw entraîné li entraîner entraîné mars d'accord mais est ce que temps bi mayoon na ko ko la question Bob. est ce que Balla moment bi mu une certaine fois de ji di ndax temps de récupération pour vous def lu réadaptation réadaptation Bob, loolu ndax une réadaptation complet parce que combat est du commun donc Balla Gaye defum lu mu mujj def un surplus

du Balla bii tafatin ba nga daanoon duma daan du tafatin bi kon moo tax ma ne Balla moom moo war a mën a pousser tafa tafa ñëw fekk si ko kii lu Balla bëgg a bëre bu dee Balla da koo bëgg a daan. ok loolu leer na mais tey koo xamante ne dafa nekk en reconstruction comme ni nga wax Balla Gaye dafa nekk en reconstruction est-ce que yoon la woon muy jël tafatin bi nga xam ne costaud la est-ce que warul woon xool foo xamante ne moo gënoon est-ce que loolu erreur. danaa la waxaat encore dama lay waxaat après. te mën a bëre te mën a bëre mën naa daan nit koo xam ne day entraîner tous les jours de góoma de gars yi sport laay wax ak yéen dama ne dafa am ay phase dafa am lu ñuy wooyee phase sportif am lu ñu mhm. wooyee phase technique am lu ñu wooyee phase tactique mhm. donc dama la wax ci trois phases yooyu ci trois volets yooyu la waxe yow dama ne la entraînement wu sportif tafatine moy gagné entraînement wu nga ñëw ci géré koremène sambo maanaam ci bëre bi ball mo upp lu muy prouvé donc sportivement tafatine à 75% ci kaw Balla Gaye buñ ko tegee ci sport buñ ñëwaatee ci côté bëre ñu ne la Balla à 65% ci kaw Moustapha Tine buñ ñëw ci stratégie côté tactique ak technique dañ naan o oh, ñal ñoo wër Balla Gaye

ok mais Tafatine bu ñu ñëwee si Tafatine moom combat bi nan la ko war a négocier moom Tafatine. Tafatine warul négocier combat bi moom moo war a woon Balla ne ko pare na dama lay duma daan la. Hmm. maa maa daan ëmmat seen comme ni mu koy waxee na ko dëggal mais si Tafatine ñëw am lu muy sedd Balla gay am lu muy may Balla gay bala gay day dox ci kom daan ko. Hmm. waaye hmm. gum la bett bis bu bala Gaye doore Tafatine safut mu dóoraat ko safut Tafatine dina ko dóor ba mu génn làmb Balla Gaye bu dee dóor tafaatin na ko leer na fi muy dóor baax na day wàññi mm-hmm. bu fi laawee laaw yu mu fi laawoon Gris Bordeaux dugal ci affaire yi tafaa mën na koo jaxase jaxase yu gaaw ok ok wala koy waxaat léegi loolu mooy l'aspect fay bagarre boo ne nit ki dalaa ragal psychologiquement da ngay xool di psychologique boobu nga wax ne nag dalaa ragal boo ko dóoree safut nga dóoraat ko safut mu ne waa ji newul ci dara boobaa fii tam day doublé bu boobaa dina la dóor ba nga génn làmb ci mhm. mais quatre-vingt-dix pour cent sénégalais yi nee nañ Tapha Tine day sóor Balla Gaye ñemewul Balla Gaye yow théorie boobu daw loo d'accord la wala xam nga man man xam man xam nga man bala may mën a wax danaa la expliquer benn affaire Cheikh yow mën naa ragal dans la domaine communication. mais ci biir géew maanaam kaa ñu xeex mën naa la cee bañ a ragal. waaw donc dans la domaine communication Balla Gaye mooy mos a dominer Moustapha Tine. c'est normal. mais ça ne définit pas ça ne définit pas ci biir géew loolu la fay demee. bii yoon la Tapha Tine gën a ragal Balla gay ci biir communication comparé bu njëkk ba bu njëkk ba xoolal Tapha Tine waaw waaw da doon rab di takk ci kawam ay takk ci rib di wax lu ko neex te te daa ñooñu daan ko bii nii waxut donc bii la gën a dominé kon na gars yi bàyyi xel ne dominé communication Balla gay il a dominé d'accord mais quand l'arbitre siffle ou arbitre bi soufflé tu vas voir une grosse différence qui n'en a rien à voir avec la communication parce que foofu jëf moo fay des lo ala la lum ndaw ndaw ndaw ndaw bo hmm. yere ya dàq ko mu daw ba sës ci mur bi nga dor ko yàq bi ben yon moy dorat ko mooyaat sa kaw lu jëm hmm. kon jeex na wolof la la wax na mais combat boña ak Eumeu sen da nga ne ma woon euh, Boy Niang kii Tapha Tine da nga ne ma tafatin amul caractère parce que yenn mbeuri waru ñu ñew taxaw ci kanam di dugg ci gardam ak yoy ba wi liko ko sen def sax tegu ko fenn cette fois-ci est-ce que lool loolu loolu mënu refléter waat digganteem ak Balla. waaw loolu mën na refléter waa digganteem ak Balla. Mhm. Euh, euh, waxal sa waxal sa gars yi lay suivre bu dee bëgg nañ bu dee ñu ngi lay suivre tem tem nekkul dëkk ku mu ci bloqué mënoo koo ñaanal dama lay wax rek xam nga bloqué naa benn. man lii mën naa mën naa bloqué benn benn am naa temps bu boobaa day fekk ne yow dootuñu la mën a suivre ti jour bi ngay dafa teg live ak man amutuñ accès. donc bu dee yow seen mbokku téléspectateur yoo xam ne nii yow lañ jëm topp yow lañ saf yow la ñuy suivre nañ xool li ñuy bind. te booy dañ may jëlaat si suuf naa ma waxal ko su dindi ma. moo moo tax nag moom laa lay wax léegi bu dee yow yow la ñuy topp ndax man moom ko ñu topp ma ñaf ndaayam loolu moom lu leer man waxuma la ñu topp ma bu leen abonné ci man bu leen ma suivre kese mais dama xeex na la yow bu dee gars yow la ñu topp ku ma ci bloqué yow bu ma woo naan ma diw bloqué na ma. leer rek. ay mature ñoo fi nekk garaawul. dama lay wax rek man yow yaa may sonal après non da ngaa bloqué sama benn booy nangam nangam yooyu néew ma ci. waaw. <laughs> fi nga nekkoon am na solo de. maa fi maa ngi lay déglu. maanaam fi fi fi ama seen egg tafaatin ci biir xeex. du yoon du yoon. mënoo ay yor ay loxo yu gudd yor taxawaay bu baax nga bàyyi ñuy dagg sa distance di dugg ci sa biir du yoon. Mm-hmm. waaw benn yoon du yoon tafaatin doon nangu loolu. mais tey yow combat bi pourcentage combat bi ñaata la sa côté. tafaatin Balla Gaye. Mm-hmm. man je donne man man je donne tafaatin cinquante je tafaatin cinquante cinq. yoroon Balla Gaye 45. pourtant Balla Gaye moo daanoon Tapha Tine. déedéet ça veut rien dire quatorze ans de cela arrêtez avec ça. ok léegi yow affaire ceinture empereur beeg yooyu yow loolu gisee. nga ne ko. affaire ceinture empereur bi yow boobu noonu ko gisee yow. dara nekkut. dara nekku ci. est-ce que loolu mënul wàññi valeur roi bi aussi. valeur roi ban. roi des arènes. mënul wàññi valeur roi des arènes Modou Lo restera le roi des arènes qu'on le veut ou pas mais dama leen wax na leen Aziz Ndiaye c'est le nouveau Dana White dañu waxante dëgg. Aziz le nouveau Dana White de la lutte sénégalaise. Hmm. na waaye dafa ñëw fekk fi UFC fekk fi non fekk fi boxe fekk fi kickboxing fekk fi muytaay mu ñëw créer li muy créer tey moom moo ko may UFC. ok. Ultimate Fight Club. moo ko mën a may loolu. léegi mais da ngay gis ne UFC am na mais one championship tamit am na ñooñu ay propriété privée lañ. Mhm. c'est la réalité. Sénégal sénégalais yi rek ñom ñoo am problème parce que ñom dañoo am lu ñuy wax une pensée toxique pensée mhm. toxique yo noonu mom mo installé wu ci sénégalais yi à un point bo xamné ni lepp lépp lu ñuy def c'est vénère lepp lu ñuy def c'est amer ok